mbubu avocat ndax nee naa la wax diggu fa yàlla jigéen boo nekkeek moom boo bàyyi ko tamit bu mu tax ngeen nekk ay noon rek dangeen ngeen a war a nekk ay xarit waaye ngeen daal di seq jàmm ak salaam surtout nag bu fekkee njaboot sosu na ci jarul ngeen di noonoo wala ngeen di xuloo wala ngeen di xiiroo wala ngaayoo ndax ànd dagan na taqalikoo dagan na waaye en rox la mu wax momoo jee nee na ko sa gémmeñu xiiboon bi nga yore waaye woyoo fi lu dul arafet amoon na fecc amoon mën a xawma la nag lan nu mu ko làkkee noonu en tout cas daal ku ci yorati jigéen ba bàyyi ko jëlal exemple ci Bastoun ak euh, jabaram bi waaye jëlal exemple ci Massiré Issa Dieye i Penda ak Mañaan Viviane ak Bouba Ndour ndax nee naa bañ tàqalikoowee jàmm dafa daal di am ñuy waxante jàmm waaye ñuy demalante di dikkalante àddina amul solo nekk ak nit ba ngeen tàqalikoo du tax ngeen nekk ay noon donc nee naa la Momo Dieng bu fekkee Rox li muy wax ci yow dëgg la wax dëgg fa yàlla soppeekul te nga changé ndax da nga am ñu la bëgg waaye danga nga nekk exemple ndax nee naa la woykat kuy woy di joxe ay message war ngaa am neneen noo taxawee rek nu dul noonu ndax nee naa la bu fekkee danga nekkoon ak sa soxna ba ngeen tàqalikoo wax dëgg fa yàlla sa jigéen rek lay mën a doon wala sa sœur wala sa yaay ndax nee naa la jigéen mooy yaay te mooy lépp te jigéen kenn du xaawi suturaam nee naa la nit ñi nañuy am ngor nañuy jiwante lu baax nañuy nekk ci lu baax ndax nag wax dëgg fa yàlla nekk ak jigéen ba ngeen tàqalikoo nga di ko xoqatal wala nga koy ñooññantal je pèse bien mes mots waxuma ne nag euh, Momo Dieng loolu la def waaye dama sukkandiku ci li nga xamante ne moom la Rox wax ndax nee naa la kii di Rox ak Tata Om Zozo ñoom ay information yu leer la ñuy am rek di ko génnee donc bu fekkee li muy wax dëgg la yow Momo Dieng yow laay wax sa baay bu baax ba ñuy jooyte noppee guñu bu dellu si waatoon xëy na doo defaraat sa toogaay waaye na mu taxawee woon ci dëkk bi ba mu su fee am woy wu ñaaw fexeel ba bul am loolu ndax nag rok su xas na la nee na sa gémmiñ gu xiibu xiiboon gi xam naa nag gémmiñ ga la tuñe rocceeku ah moo tax mu naan ko sa gémmiñ gu xiiboon gi waaye wax dëgg fa yàlla moo kenn mësulaa dégg ci lu ñaaw kon nag bul toog ba tey nga bëgg a def lu ñaaw ndax nee naa la ki nga xamante ne moo nekkoon sa soxna sa rakk la wala sa sœur wala sa tante wala mu nekk sa yaay kon lu ñaaw warul xej foofu bu fekkee rox lu muy wax dëgg la nag soppeekul te nga changé jàppee ko jigéen mu jàppee la góoram ndax ànd dafa dagan tàqalikoo dagan ndax nit ki nag bul tàqalikook moom rek ah ba tax ngeen di noonoo waaye nee naa la man daal ñi fi ñu jëlee seen information yi jaaxal na ma ndax man mi nekk Sénégal sax di fi dund wax dëgg fa yàlla xaw ma woon ne sax Momo Jooy Momo Dieng dafa divorcé nee naa la information yu leer soo ko buggee am kii di tata om zozo ak rox ngay déglu rek daal di xam li xew ci réew mi ndax man kat xaw ne wax di dëgg fa yàlla euh, Momo Dieng da danga tàkkalikoo sa sa soxna waaye nag àddina noonu la ndax ànd dagan na waaye tàkkalikoo dafa dagan waaye bu ngeen tàkkalikoo likootee rek dee leen waxante la jàmm di waxante lu baax nee naa la fii dem mi ngi taw fi mu nekk nii feex maa ngi dugg brise bi di dugg en cas daal somo na ngi neex ta maam yàlla jaa ngi taw di wàccee xeewal xaw ma yéen fa ngeen nekk ngi taw waaye fii ñun moom wax dëgg fa yàlla ñi ngi taw mi ngi baax en tout cas Momo Dieng lenn laa lay digal di la ko euh, jox benn astuce bu ndaw boo nekkee ci réew mu mel ni Sénégal nga euh, nga bàyyanteeg sa soxna na ca jàmm rek jàmmoo leen jàmmoo dafa neex de dangay nekk ak nit tey nga laajte ko suba ñu ne la euh, faatu na fa yàlla waaye yow yàqeti laa naa lu fi jar ñaawoo nag ah gisuleen ma ni may bellee nii dinaa naayi jàmm dafa neex jàmm ku nekk xoola wutalal sa bopp jàmm rek nga daal di jàmmoo ndax nee naa lu dul jàmm jàmmaa ko gën wa ndax maar yaasin may su bige maar maar chéri soxna ay dara karaara ba nit ñay wax coow lay bari kaayaak détail ya di bari moom dafa daldi di dem xoola jënd ay otoom yu luxe rek daal koy gaare nee naa la kenn du moom fi réew mi toll boolewul dara ki wax ay woy yu neex fecc yu neex style bu bees oto yu bees moom daal jàmm laa pee la woote daal jàmm jàmmam nag kenn du ko ko xañ ñee naan oto ba nangami million lay jarak am naa oto nangam million moom boole patak organisé dem jëli ji ay otoom waaye xaa xalaa mënu leen a jël ci secret Maria Sy Maysa Bigué bi Maria Sy Maysa Bigué le chanteur du peuple ah logal doon booy de faramaaren du ngeen jël ci ay jikkoom tuuti dee jël ci ruusit yi dee leen topp ci moom di jël ci ruusit yi bu ngeen mënta mel ni moom sax ndax mel ni moom nag yombul Ah, naaru jaaga mel ni moom yombul ndax benn benn bind la bu yàlla bind rek ci kaw eh, suuf ku bëgg a mel ni moom nag da ngay tarbiyu rek boo tarbiyoo topp ci ginnaawam di jël ci ruusiti rek eh, di ga mën a mel ni moom waaye en tout cas daal wax dëgg fa yàlla ah Momo Dieng maa ngi lay ñaan sa soxna soo su nga xamante ne bu fekkee da ngeen a nekkoon ba tàggoo na seqal ak moom jàmm ndax nag ay nit a ngi fi yoo xamante ne boo buggee toroxal doomu aadama ñoom ci seen bopp dañuy taxaw dëggal seen bopp ne ñooñu kenn du lee ndax man nag man mii ku nar a laal Viviane Massiré Issa Dieye Fatim Penda ak Mañaan la bind la bu yàlla bind rek ci kaw euh, suuf ku bëgg a mel ni moom nag dangay ngay tarbiyu rek boo tarbiyoo topp ci ginnaawam di jël ci ruusiti rek euh, di nga mën a mel ni moom waaye en tout cas daal wax dëgg fa yàlla ah moo Dieng maa ngi lay ñaan sa soxna soosu nga xamante ne bu fekkee da ngeen a nekkoon ba tàggoo na seqal ak moom jàmm ndax nag ay nit a yoo xamante ne boo buggee toroxal doomu aadama ñoom ci seen bopp dañuy taxaw dëggal seen bopp ne ñooñu kenn du lee ndax man nag man mii ku nar a laal Viviane Massiré Issa Dieye Fatim Penda ak Mañaan wala nga war a laal waali Seck rek di nga jaar sama kaw rek balaa nga leen laal ndax nag xoola man maay seen avocat nee naa la ku leen laal ma jóg waaye nag rox su nee na euh, soxnaas ma moo jeen soosu solal na ko robbu avocat waaye nag man li ma gën a kii ci wax rox su de nee na ma moo jeen sa gémmiñ gi nga mel ni gémmiñu xiibon woyoo fi lu dul arafet amoon na fekk ak sa woy boobu saf na ba noppi ah waa yàlla baax na moomoo ah àndala xolu muñ rek te nga <laughs> waaw changé doxalin rek ndax dëkk bii ñu nekk boo fi dara am na ñoo xam ne boo leen naree laal <laughs> day am ñu jug taxaw de solal leen robb avocat te duñ ci daw dara e ale kama sall naaxira atoy sa sabali bref nee naa la ñu ngi ci mois d'août mois d'août nag ku ko xam-xam ne day taw rek moom mois d'août août septembre te taw bi temps yi dafa yéex a ñëw waaye ñuy ñaan borom oto yi di leen ñaax di leen ñaaxaat bu fekkee nawet lañ nekk bu ngeen di taw daw dawal da ngeen di def ndànk ndax nee naa la tali yi dafay daal di di tax ndax booy dawal te defoo ndànk maa ngi seetaan ay accident yoo xamante ne wax dëgg fa yàlla metti na lool ndax ñu bàyyi seen njaboot di dem di doxi seeni soxla oto yi nañuy daw ndànk chauffeur yi nañuy am respect nañuy am éducation de base nañuy xool ñan la ñuy jox permis yi parce que accident yi metti na de temps yi wax dëgg fa yàlla accident yi metti na nee naa la bu ma jógee foofu damay ñëw ci ñi nga xamante ne dañ leen di woowee quelqu'un quelqu'un nag boo ko nekkee mooy boo nekkee sa bureau wala nga sol mbubb ma ndax yenn saa yi ngay wax ak nit mu naan la moytu ma man policier la wala moytu ma man avocat la gis nga boo nekkee policier wala nga nekk avocat xam nga fan nga koy nekk ca sa bérébu liggéeyukaay mais saa yoo sumee mbubb mi nga soloon teg sa carte professionnelle sa kër yaag nit ñi yaag citoyen yi yéen a yem nit ñi dee leen modeste di wàccee seen bopp waaye yow da ngay tooñ nit sax bëgg koo jaay doole ci tooñ gi nga xamante ne moom nga ko tooñ muy wax ak yow nga naan kaan ay je suis quelqu'un ah man je suis quelqu'un dans ce pays si tu es quelqu'un dans ce pays te yow xamoo luy loi amul benn importance te amul benn sens te gis nga yaa ngi wax ak koo xamante ne nii dafa xam ay loi xam droit am xam li nga xamante ne mooy dox ci société bi booy wax ak moom dangay def très attention ndax nit ñi am xam nañu seeni droit am na ñoo xam ne amul police bu ñuy ragal wala avocat bu ñuy ragal dañoo xam seeni droit lépp droit lañ koy teg ak yoon donc yow mi nga xamante ne yaay nekk yaay sol sa mbubb policier ba foo bëgg a dem rek daal di ko fay wone di jaay nit ñi doole munul nekk boo xesee simmi sa yére bi nga xamante ne moom nga sol sa professionnalisme yaat nit ñii di dox yéen a yem kon nañuy xam naka la ñuy doxalee ci société bi nan la ñuy waxee ak ñoom ndax yenn saa yi nga daje nit nga daj di daje ak moom infraction daal di am moom mu bëgg la jaay doole ne la man je suis quelqu'un waaye bu boobaa yow wan ko ne ko yow citoyen nga tey yow yaa tax mu doon quelqu'un ndax nit bu nekkee policier société bi lay aar ñi nga xamante ne ñoo fi nekk lay aar nit nag boo xamee say droit doo xuloo doo xeex doo saagawante gis nga bu la nit tooñee demal fa ñuy àttee rek ñu daal di leen àtte rek bu ko defee rek ku nekk daal di dem ndax nee naa la Sénégal gii ñu nekk billaahi ku fi deful ndaa dañ lay yey mbaa ñu matta la mbaa ñu gàdd la mbaa ñu warax la te doo ci mun dara kon sama gars yi dee leen def ndànk waaye yéen ñuy dund ci société bi nangeen xam seeni droit xam yéen ay kan boo nekkee ci dëkk bu mel ni Sénégal te xamoo say droit dañu lay noot di la nappaaje di la dëggaate xoola di jaar sa kaw di jàll te yoon nit da xam sa droit xam yow yaay kan ba boo joteeg nit nga teg ko ci yoon bal du tàkk fetel du jug te dara du yëngu loolu ci xam say droit bañ a ragal ndax police bi ngay ragal nit la comme yow garatam rek moo ko may ngeen différent we waaye bu simmee garatam yaag moom yéen a yéen a yem citoyen lay doon nga doon citoyen avocat bi nga xamante ne moom ngay ragal tamit yéen ñaara yem rek mbubbam lay sol bu solee mbubbam ngeen di différent waaye bu sumee mbubbam yéen ñaar yéen a yem fa yàlla kon sama gaay yi nañuy dawal yërmande nañuy def lu defu nañuy wax lu waxu nee naa la soxnaas bastion si ndax delloo nañu ko maam jaara moom nga xamante ne wax dëgg fa yàlla dafa bëgg a jëkkëram ba mu jeex delloo leen koog jëkkëram nag àddina amul solo delloo leen maam jaara ak jëkkëram bastion bëgg na ko am na ci ñaari doom yu góor te nag xoola mbëggeel nee naa la duruus waaye en tout cas man fi temps bi toll nii taw bi di taw seddaay bi di dugg ah naa sama jëkkër lool nag wax dëgg fa yàlla ak yéen ñi ngeen xamante ne seen jëkkër daa tukki ngeen nekk fi yéen kese sama vidéo xoola beere fag yaa xayti mulaana waru ko woon a am a ah, doy na waar bonjour madame comment tu vas bonjour mademoiselle tey moom dañoo bëggoon nga ñëwal ñu si jaar jaaru euh, Rasta Paradis maanaam empreinte bi mu marqué ci label bi Euh, Rasta Paradise nag benn nit la boo xamante ne man dama ko naw dama ko stimer waaye dafa nekk nit boo xamante ne dafa am ay valeur ndax fekk fexe na ba marqué emprentam ci liggéey bi nga xamante ne moom lay def ndax nee naa la ku créer employé ba pare créer société ba pare li gën a riche ci Rasta Paradise xam nga mooy lan nee naa la boo duggee fi nga xamante ne mooy lieu de travail am di nga gis ay seize yoo xamante ne Africa la ko daal di liggéeyee waaye nee naa la ña nga xamante ne ñoo fa nekk di fa liggéeyee ñëpp nekk ay doomu réew mi ndax nee naa la képp koo xamante ne nii rek wàcc nga ci lagin bi kan ngay laajte rasta rasta paradise nag loolu yombul mu nekk liggéey bu rëy boo xamante ne rek bi nga xamante ne nii mu ngi koy def ñëpp dañ ko xeeboon waaye nee naa la fi mu nekk nii ñëpp dañ ko jox cër jox daal di koy naw ndax man référence la pour man tey nag dama leen di indi rasta waaye am na ñeneen ñoo xamante ne tamit ñu mel ni rasta la ku ci mel ni Adams waaye nee naa la buuba waaye ki nga xamante ne mooy am di Moustapha ak Libaas ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne dinaa leen ko indil waaye tey dama leen di indil rasta mi nga xamante ne képp ku wàcc ci lagin bi balaa ngay laajte kenn rek da ngay daal di laajte rasta ndax nee naa la loolu lan moo ko ko may dignité personnalité am ay valeur yoo xamante ne nii incarné incarné incarné na ko ci réewum Sénégal bi nga xamante ne moom la nekk ndax bu la neexoon nag nga daal di dem Europe waaye bu la neexoon nga daal di dem feneen waaye danga nga ne ci sa réew mii ci sa réew ci sa dëkk ngay daal di fësal liggéey bi nga xamante ne moom ngay def waaye nee naa la wax dëgg fa yàlla ku fekk fu dara nekkul nga daa di fay def dara kooku jara lañ ko war a wax kon rasta maa ngi lay wax vraiment jarabot bot e jaaraama ndax nee naa la séeréer nga waaye xeeboo sa bopp benn yoon kenn kon tey rasta paradise laa leen indi loon tey beneen yoon dinaa leen indil keneen ak keneen I love you so much thank you mademoiselle maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax merci beaucoup bi beneen yoon